asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne daanañ baaxoo at weer wu ne ñu ànd ñun fii ci jumaa ju mag yi di jumaa yi Seexul Xadim eh, ñoo ngi toogaat fii ci jumaa ji feggoo ak eh, sëriñ Abdou Diop imam mi yore kàddu commission bi ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ci teewaayu sëriñ Abdou Lahad Bousso Maasta ak kuréel bi mu àndal bépp waaye ànd ko ak mboolem ñi nga xam ne ñooy kuréelu eh, séntu weer wi Euh, mu mel ne rek euh, waxtu wi ñu daan joxe déclaration jot na ci ni ñu ko daan defee damay bàyyi kaddu gi ak sëriñ Abdou Diop imam mi nga xam ne moo yore kaddu commission bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ni ko sëriñ <coughs> Fallou Galassi la waxee rek noo ngi nuyu bokk yëpp di leen xamal ne ni ko baaxoo def def nañ ko muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne sëriñ bi dana yabal ci jumaa ji ñu yéene fi. wax ne nañ séentu yooyu te loo ci waaye xam nanga ko yëgle si bu buñ ko séentoo ba noppi nag nun commission bi ak waa mu xadd xaddamatul xidma danay ànd toog ci soowu jumaa ji di taatam xibaar yi ak di séentu suñu bopp ban biñ ko defee nag ba waxtu wi jot nag ba ta jokkoon nañoo mboolem gox yi ci Sénégal waaye ki fenn fu ñu waxee ne gis nañ fa weer wa amut nu it suñ séentu nañ séentu waaye gisuñ ko bañ defee loolu yi lan daal di jokkoo si kër kër xalifa bu tedd bi Cheikh Mouhamadul Mountakha ba kon mu joxe wax ndigal ne ginnaaw jekk ngeen ba nëgëni di ko séentu te gisu leen ko kon mën nañoo mën nañoo joxe ndigalul ne feeñut kon ñu xam ne weeru wi feeñut suba ñu xam ne mooy mottali weeru <coughs> weeru kor wi di fanweeram waaw kon ñu ñëpp nañ xam ne suba ci ajjuma ji mooy doon fanweeri fan ci weeru ko weeru kor wi gaawu kon mooy doon benn fanu ci weeru digg wi di diggu tabaski kon ñu xam loolu di ñaan nag sëñ bi mu yàgg fi lool ba li mu ci yoon lépp mu def ko tan ànd ak te naan ceeg moom yàlla may nu xéewal ak jàmm ak sutura ak teele bëgguñ nangu ci dara yi Seexul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi di sant nag boo euh, comme euh, waa rajo Lamp mi nga xam ne weer wu jot danañ dikk toog ak noonu jot li xibaar yi nga loola ca jamono sëñ Saaliw ba tey ñu ngi koy def mosuñu coo jénnal benn fan di ko di ko di ko ànd ak noonu di topp Fallou Gass Sylla bi wuñ koy séntu bu ne dana dana teew daa ànd ak bokk yi ñu bokk di ko séntu kon nag noo ngi koy noo ngi leen di sant bu baax a baax ndax loolu liggéey bu rëy rëy la boo xam ne du jénn benn du jénn benn yoon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi loolu mooy déclaration bi kon ñu xam ne weer wi feeñul euh, gaaw mooy nekk benn fan ci weeru diggu tabaski